Sénégal 4 TV yow ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV affaire Balla Gaye Modou seen supporter mun ñoo wax ba doon benn fi ak ñaari mbir yaa ngi bëree parce que boo gisee fan su Balla Gaye yëpp supporter Modou Lo doon supporter Modou waxoon naa ko dinaa ko waxaat mooy dañoo foogoon ni Modou Lo bu daanee Eumeu Sène dina jël Balla gay 2 yaa mais fan su Balla Gaye mënut bëgg Modou Lo nekk fan su Modou Lo mënut bëgg Balla Gaye amaana Eumeu Sène dafa toog devant de monde ni dootuma bëreeg Balla Gaye 2 moo tax ñu xam ni moom mu jël roi bi amulul Balla Gaye intérêt moo tax fan su Modou Lo fan yëpp fan su Balla Gaye yëpp ci combat bii nii man xam naa ñu bari ñoo xamante ne si Modou Lo lañ faral ndax lan loolu léegi instant bi Modou nag demee ba toog. ba waxtaan ak staff su nekkee jël Balla arrange na ko mu jël ko su nekkee jël keneen a gën a oyof mu jël ko mais ci cadre làmb lay waxee cadre làmb su nekkee moom bëgg naa gérer avenir u koronam ah dina jël Balla mais bu mu ko jël ci premier combat am comme li Eumeu seen def bu mu ko def moo xam mooy daan moo xam daanul mais logiqueul xel nanguwu ko waaw ndax moo loo jël roi premier combat mu jël ci Balla Gaye loolu xel nanguwu ko. su nekkee ni nag bu nekkee ni nag da koo jàppee business pour bëre bëre rek bu ko neexee na ko jël mais bu dee da koo duggee ci cadre gérer roam pour gérer couronne bi ba ci kalam bu mu jël Balla gay ndax mën na koo jël daan Balla Balla mën na koo daan waaw man nag loolu laa ci indi sama xalaat ñoom ñaar ne kenn du sama mbër suñ bëree daf may neex pare man amateur laa man bëre rek laay wër. Euh, <laughs> déglul am na am na vidéo bu yaay mën loo waxee de yaay mën am na bu ma waxee quoi <laughs> ne ko Balla Gaye nee na doy na sëkk doy na sëkk Balla Gaye gi <laughs> nee na Balla Gaye gi na rek Balla rek ci bëri rek kooku tàggu gaawal kooku moo naan supporter yi jóg leen taxaw ma dem def li may def yi ñëw leneen ci kaw moo yëngal suuf gi ah gësëm <laughs> kok kooku kok kok kok allah kooku kenn ko dóor muy wàcc seet seet seet ay bu ngeen ko jëlee bu ngeen ko jëlee war a amal amal seen la leen daal bala nga pare de partout. sama gars yi amal seen yeewu na wala yeewoogul yéen ñi dëggee Pikine damay xoolal ma ko ndax yeewu wala yeewoogul dégg nga nelaw bi daa yàgg trop. <laughs> astaghfirullah waaye wax ma ne loolu man démb dafa am lu ma jaaxal quoi dafa am lu ma jaaxal Modou Lo dafa am loo xam ni dama ko rêvé woon bi ma ko supporté ba mu am ndam dafa am loo xam ne couronne bi ñu teg ko si boppam comme keroog bi Eumeu Sène daanee gi ni mu toogee ñu jëlee ko couronne bi teg ko si kii mu jël seize bi kii dama ko gisul keroog si euh, dama ko gisul keroog si démb si Modou Lo tam ko doon xaar nu mu fa demee noonu moom dafa daan rek génn xam naa ni. ku mel ni ndaw Samba mi nga xam ne demoon na esaat waaw xam naa bu déggee sama sama vocal dina ma si leeral tuuti ak gars yi demoon esaat loolu moom xaaroon naa ko trop mais gisu gisuma gisuma ko tam action boobu bëggoon naa ko gis trop mu sedd sama xol. yow eh, supporter Amos eh, Modou Lo boobu génn sant ñu gërëm ñu te nañu sukkandi si kooku rek gis nga su eh, amee fukk yu wax yu bon nañu jàpp ci benn bu baax bi rek kooku suba ba léegi mu ngi gërëm di ñu sant. ñu jël si suuf ñu gërëm duñu sant nañ xool ci kooku rek ñeneen ñi moom moom jartuñu pour man jaruñu tontu de parce que yàq wax moom jarul képp ku yàq waxtaan rek jaruta tontu quoi billaahi fii moom ay Balla Gaye wax na li wax na la kii nañ feete eh, victoire jàmbur bi le nouveau noir des années nañ ko nañ feete wax ci waxam commentaire ci loolu ay Balla wax na lii waxalu leen yooyu ama amatu fi sens Balla su waxee jëf na dafa wax jëf xam nga wax ak jëf lay boole moom nañ wax nañ bàyyi yooyu rek te supporté ma quoi Modou Lo quoi Modou fi nekk tey ñu wax waxu Modou comprendre nga commentaire ci làmb jooju commentaire ci yooyu moo gën daal yii daal yii moom day yàq daal billaahi waa jee ñoo ngi lay fay di la ziyaare bu baax di la jox sa wàccu waay wax naka tey naka lundi maa bi maa lépp jàmm rek waa di wax ni Eumeu Sène Modou Lo gaynde nga ne paase na waa léegi Modou fan fan lañ ko war a yóbbu man sama gis-gis moom ah. sama gis-gis bu fekkee ne lu ma bëgg rek laay def ak ban mbër laa am ci moom confiance pour mu daan Modou Lo ah? balde la wala Balla Gaye waaw parce que xam naa ne Modou Lo ak Ama Baldé moom buñ ko tëggoon Ama du ko may dara du ko bàyyi mu xalaat fenn waaw mais su ma tee Modou moom dinañ na jotagul mais en tout cas daal wax dëgg yàlla man Ama Modou Lo moo ma gënal Modou Lo la de waaw parce que Ama moom. day ñew indi limu indi mais la de Guiers sama mbeur la mais limuy taxaw di calcul ak limuy muy day xaw a quoi mais bu fekkee lamb ju neex pour man ah bu budul mok moog mom wax dëgg yalla mok Ama balde lay gis. akay bay man lool la bëgg quoi jey ñu la ziar ba gaay dañuy ñew indi commentaire bu neex gaay di dañuy waxtaan ci ko bay ne kenn ñew fee naan diw mo waxon li diw mo waxon lool la passé la passé ay eh, diw mo waxon li fi chaque jour ñu wax fi nit lo xamanteni nekul ndax ñun Sénégalais loolu ñuy dund ko waaw mbë nit moom ku ciy dem chaque liggéey ko waxoon nag mbër mu ciy dem ba ñu wax sa ginnaaw mënut a ñàkk mais boo gëmee sa bopp boo gëmee sa bopp lu dul mbër sax keneen ku mënti doon boo gëmee sa bopp rek génn ci yàlla mooy lépp mais am na ci ñoo xam ne mooy loolu quoi da ngeen di commentaire bu neex ñu naan ci moo waxoon ni ay nee na noonu mën def nangam nangam Balla Gaye bi mu jël roi nee na noonu du jël roi te jël na ko comme ni ko sa waa ji waxee keneen du ko def ci kaw ci kaw suuf amul ndax mbër yi nekk ci guddi yu ñu toll nii waxuma la dara mais booy yi ne ci suuf dong fi ñu toll nii wex at lan rek waaw boo nee rëg-rëg nga ne nga ne kii am kii booy bi booy Pikine nga ne Ama Baldé ñun ñëpp booy saf sàppalante duñ xaar gars yi mais gars yi làmb ji ak làmb ji bu jëkkoon bokkul jekkonte rek moo fi kenn mënu fi di ko waaj waa rek kenn mënu fi jekkonte rek moo fi am ay doomi dugalal ji dëkk pare na moom su ñëwee di delluwaat jukkal ñëpp ñëpp ñu jàppoon ci combat bi ñëpp ñu doon ñaanal Modou Lo képp ku nekkoon ci groupe bi doon ñaanal Modou rek man sama ndaw maa ngi lay bégee di la delloo suñu njukkal di la wax ne seen ñaan yegg na yàlla nangu na ko eh, dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin di ñaanal suñu mbër yàlla na ko jig ndam li yàlla na ko jig di ñaanal Eumeu seen mu dem defarwaat rek làmb moo ngi noonu làmb moom ak daan ak daanu la di wax fante Eumeu Sène nekk ci biir groupe bi yëpp bu ñu découragé ñu découragé. ñun tolloo nañ fa guddi goo xamante nii lu na dégg nag ko Moodu tey jii bu nekkutoon jàmbaar tey jii làmb da koy bàyyi mais tey jii lu na dégg na ko lu ne dégg na ko ñuy dégg di mu nekk juutal nañ leen ak def nañ lu ne lu ko mais làmb moo baaxee noonu kon waa kër Eumeu Sène dama leen di ñaan ngir yàlla bu ñu découragé bu ñu découragé te damay wax waa Pikine lu ñu def ñaaw na trop ku mel ni roi de arènes di déplacé pikin jógee mun u ñu ñëw sa indi ñaari kaar wala des bis yoo xam ne nii mën nañ ñëw supporter Modou Lo mën na ñëw supporter Eumeu Sène loolu ñaaw na trop waa may déplorer waa Pikine loolu waaw si gi ñuy gu ñuy woote am na fu mu féetoo euh, Eumeu Sène ñoom waroon nañu génne massivement cent pour cent ñëw supporter ko ndax Eumeu Sène indiwul démb supporter maa ngi jégalu bu baax di jaar ñëpp di leen làmb la làmb waneeti na boppam dama bëgg a xam ne Modou si làmb la bokk buñ ko daanee ci làmb la bokk bu daanoo ci làmb la bokk kon maa ngi di jaar yéen ñëpp di leen bëggee waaw go maa ngi lay ziar bu baax di la ziar si loo nekk yaa si jàmm naka coono bàyyi am taw feex góo waaw jërëjëf noonu la ñoo bokk làmb moo wane waat boppam di ni ko waxee rek moo tax euh, kenn wuru fi yenn ñaan yi jaru ko woon yenn yi jaru ko am na ñoo xam ne nii tey jii ku mel ni euh, kii baaxum bu bu parcelle bu pikin ba kii baaxum nu mu tuddati euh, ki nekk ki nekk pikin noonu rek ménagère booy ñaabi xaw ma ki doon wax ne Modou Lo du mu nekk du moo sa nekk roi des arènes ba keroog muy dee. kàddu googu ni mu doon dérangé dégg naa ko ci groupe ba sonn nag si kàddu googu noonu Modou du nekk roi des arènes ba mu dee du ko doon bëri nañu ko doon wax si groupe bi tey jii ñooñu ñu ko doon wax war nañuy wax astafirullah jéggalu yàlla bu baax a baax baax ndax fii lu lu yàlla rek neen la yàlla moo yor lépp di ko joxe Modou du nekk roi des arènes ñu teg ko fan ak waa ju doon wax ne après combat bi lay wax lan la lan lan lan la gis naka wax. après combat bi lay wax lu mu demee kooku laa bëgg na dugg ci waxaat lan la waaw go maa ngi lay jaar bu baax di leen déggee di leen kontaan yéen ñëpp di leen jaar kontaan nañ ci ñëpp waaw ñu faral moduloo ñu ko faralu doon yëpp maa ngi di kontaan waaye raw rawatina waa kër Modou Lo di déggee bu baax ndax groupe bii Modou Lo wéetu fii taxawu ngeen ko taxawu ngeen ko waa kër Balla Gaye maa ngi leen di ñaanal jàmm seen yéene yëpp yegg si na. ñeneen ñu yéenewul moom tamit yegg si na man daal tey dama kontaan dama kontaan wax dëgg yàlla kontaan naa bu baax a baax a baax a baax. léegi léegi roi moom roi moom gars yi dañuy wax dëgg mais roi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg roi moom mu toll ñi ne ci kaw rek nga mën a jël roi moom ma ah, ñi ne ci kaw rek nga mën a jël aussi te ñi ne ci kaw ñëpp kenn ki defet laa victoire laa ñi ci des euh, ñi ci des doxul instant bi doon nag ñi dox nag la mën loo di jël bu laa mu day wax dëgg rek ñi dox la mën loo di jël alxamal yaar de ci kaw dong la mën a jël nag balla gay def mën a jox revanche balla gay ko mën a mën a jël pour leeral nag moom à part ça bu balla gay ci ñu boy yi dong la kii dong la mën jël ama balde dong moo fi mën a feesalaat ça ama balde keneen ko fi mën a indi stade bi bombardier moom na ma doyal jégal moom xam ngeen bombardier sa dégg ñu bombardier xanaa kii mbër kooku wax dëgg yàlla ko dëgg xam nga ne perte